est-ce que xam ngeen ne Karim Wade yëngal na réew mi ah. Karim Wade ah, nee na képp ku musa àndal nga woon ko ginnaaw dem fekki Macky Sall bés dina ñëw nga woon ginnaaw Macky Sall ñëw te boobaa boo ñëwee lam lay wax di nga ko dégg ñu seet Karim Wade jërëjëf lay waddey sa baay Karim ñëwal jërëjëf jërëjëf na ngeen def man samedi seetaan naa télé i loolu ma gis loolu du dara Macky Sall li mu def keroog mais loolu du dara loolu du dara sama papa bi mu ayee ba di def lii lu mel nii 2012 mën na ko ñetti yoon waaye bi daanu jotee sama papa dafa xalangu du dara est-ce xam nga ne mbooloo mun na la topp li nga yaakaar ne ñëpp yow la voteel fekk yàlla nee na xoolal dama lay wan àddina mooy lan siiroo ci siiru bi doo ko sax yéeg kon du ay mbooloo moo tax ñu naan kii gañe ne ba pare bi ma tali télé ba gis Balde muy teel mel ni kuy séntu weer bi gis Mamadou Diagne Fada sama àdduna tuuti mu tukki ma xam ne ñii nga xam ne suma papa fu mu jaar ñoom ak man fi ma jaar ak Balde Balde commissaire police la woon man maa tax mu bàyyi police ñoo dugg ci affaire politique adduna lu mu naqari naqari ak lu mu métti métti waru woon woon ginnaaw suma papa man sax man waru woon woon ginnaaw ñuy wax mu naan dama gis nga adduna bi léegi adduna bi léegi ku yeboo rekk xam ne ginnaaw yàlla ak ay yonenteem ak ay saabaam ak kilifa diine yi nekk ci àddina nit ak simple kese <laughs> boo la waxee jëlal sa loxo dóor ko ci mbedd mi parce que man gëmatuma kenn xoolal ñii fu ñu jaar ak suma papa ak suma papa lu mu leen defal ci àdduna ñu dem war suma papa dem toog ne xujju mel ni dafa mi <laughs> est-ce que dégg la est-ce que ñoom Balde ñoo fa nekkoon c'est pas possible man gàcce gi ma am man mi ko doon seytaan ñoom bu fekkee ne amuñu gàcce ma xam ne kon ñoom duñu ay nit normal léegi xam nga affaire bi lan la léegi cooli cooli mooy ñii trahi trahi nañ ba pare dem seen yoon su ma leen di lim fii na ñuy fanaan warkat yi bii dem nañu ba pare incha allah Macky Sall mu ngi soog am problème numéro un mooy man Karim Wade parce que wax naa leen ko ku ñam kaso ñamaat kaso du la jaaxal man ñam naa ko benn at ñaari at ñetti at xam naa li muy saf kon delluwaat fa du nekk problème si man et puis li ma gën a métti mooy ay président yoo xam ne seen yoon warul nekk ci affaire parti ñu ne xujj xujjaaral di tàccu ci loo xam ne suba xamuñu ndax ëllëg man maay toog wax ak keneen mooy toog mais du doon Macky. ma ne. gis nga mag yi dama la bëgg xamal ne dangay taal sa ordinateur. nga dugg YouTube. nga tapé investiture maître Ablaye Wade 2012. soo ko xoolee xam ne li fa nekkoon ci stade bi. mën na sa bas juróom-ñaari yoon. te teewul sama papa dafa daanu ci suuf xale nga kon affaire bi du ay bëri nit ak tappalin yooxu fii men jaar ñi jaar ñali xam nga pour man lan la pour man waa PDS ñoo fa nekkoon parce que ñi gépp waa PDS dañu mais yàlla du seetaan loolu on va voir qu'est-ce que ça va se passer mais jàppale ne Karim Jantal dinaa ñëw yëngal gësëm Dakar ba mu saf dinaa yëngal gësëm saf ba mu saf sàpp ba mu saf sàpp